waaw mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ngeen gis ni actuellement ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy terrain Lansar fas yéene jublu ci li nga xamante ne ni moom mooy gàmmuk soppe nga xam ni waa groupe 100 pour 100 Pa Malick Mbaye ñoom ñoo koy amal ki ma jàkkaar loolu nag ngeen koy gis moo nekk Talla Gadiaga nekk ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo gérer organisation bi ñu ñëw fekk leen ngeen nekk en activité dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo waaye tamit ñu soog dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi ñu ngi leen di bu baax baax Ah, ñi ngi lay fay di nuyu euh, téléspectateurs yi nga xam ñoy sétane Pamale mbay TV yépp di len ziarra di len ndokkal ci euh, wéru sell wi di weeru gamu euh, nga xam ni lépp lu ngi def rek ngir yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax ay dañu tey fekk len ngeen ni wajali nga xamante moy guddi gi cat fas yéene ñëw ak ñi nga xamante ñom ñoy sopé gamu gi nga xamante ni gamu sopé lañ koy wowe nek tay ji di jouru nopplu gàmm tay naka ngeen ko wajale wa gamu gi nak ñu ko waajalee rek nu raw ñu ko daan parce que gàmmu goo xam ni amul tànk gannaaw tànk kanam rek la am boo xoolee tànt bi nga fi gis nii gis ko fi daaw xam ni at mu nekk yokkute da nga ci gis yokkute loolu nag euh, mbir yonent bi moo mel noonu waaye suñu slogan mooy li nga xam ni mën la Pape Malick Mbaye di wax toujours mooy yéeneem rek mooy jël jël ndaw ñëpp jox Serigne Babacar Sy te loolu mi ngi ci am réussite ndax ndaw ñaa ngi yokk macha allah tabarakallahu seen yittee ngi yokk seen taxawaay mi ngi yokk at mu nekk nga gis ci ay nit ñoo xam ne jël nañ engagement bu bees ak yéene bu bees lépp rek ngir yàlla bëgg sëriñ Babacar Sy tabaarakallaahu tey jii ndax xam seen communication ak itam yëgle bi nga xamante ni tey képp koo xam ne soppee Pape Malick Mbaye nga rek ci Sénégal waroon ko kaa a yëg ba ñëw teew ci moom mooy gàmmu gi ndax ku bi xam na ne tante bu nekkul lu ndaw est-ce que waa groupe 100 pour cent Pape moom xam nga moom daanaka jëtul yëg la parce que gàmmu gi dafa may boppam promo moom moo may boppam promo ndax buñ ne dañuy budd fukki fan noppalu ñun dañ ñu dootuñu noppalu bisu noppal boobu dañ ciy jël tàntal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ceeg Pape Malick Mbaye mboolem soppe Serigne si yëpp fekk su ko fi mboolem soppe Seydi Hadji Malick yëpp fekk su ko fi waala képp kuy kuy kuy njabootu yonent bi sallallahu tamit sa xel day nekk fii ci bisu noppalu loolu ñu yàgg ko organiser yàgg koo taxawee di ngaan yàlla mu jëm kanam at mu nekk nag yàlla jox na ci euh, réussite boo xam ne sax fooguñu ko ci woon wax dëgg yàlla waaye bu ñu àgg ba cëppaandaw rek ñu ñu gis ci réussite boo xam ni da xam ni rek euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu wuy si waaye du sax suñ taxawaay sax tolluwul noonu tabaarakallaahu macha allah seen taxawaay sax tolluwul noonu waaye tamit pas-pas bi mu fi ak li nga xam ne mooy engagement bi ndax lu ni mel taxawal ko du lu yomb comme ni nga ko xamante ni noonu nga ko waxee sa ay biir wax waaye seen jëflante ak ki nga xamante ni tey moo waral ngeen déplacé wu bàyyi seen yitte yéen ñëpp ñëw fas yéene amal bis bu ni toll ngir bégalee ko ñi nga xamante ñoom ñooy soppe Pape Malick muy seen diggante ak ki nga xam ne moom mooy Pape Malick naka ngeen koy ngeen koy doxalee maanaam lien bi nga xam ne moom ngeen am ba taxam ngeen am idée bu toll nii taxawal ji programme di ko jagleel ñi waa xam nga Pape Malick nag ñi ko sopp ñi ko sopp kenn ku nekk ambassadeur nga ci moom ca fa nga gox ba nga féete ndax damay wax ni fépp foo dem ci Sénégal fépp foo dem ci àdduna bi boo demee fekk fa ay soppeem ñu nekk ñu mën koo représenté loolu nag yàlla ko defal xam naa ñaanu sëriñ Babacar Sy la topp sëriñ Pape Malick bëgg turandoom waaye moom nag muy ku neex a sopp nag ndax nit la koo xam ni it ku ku ko miin loo ko gën a ku ko miin dootoo ko attante ñàkkati loolu yàlla defal lu mu woote rek 100 pour bi taxaw ci muy góor du jigéen di mag di ndaw boo fi ñëwee da ngay xam ni lii bari na ku ñuy wooye sax sëriñ te mënoo te say say njaboot mënuñoo taxawal lii te moom du fi jaar du fi yónnee duñ ko gis duñ ko dégg waaye lépp ay soppeem ñoo koy def kenn ku nekk da ngay yëg ci xolam ni lii yéene mooy mu taxawee gaama gi moom rek moo tax dara du tar rek ngir yàlla jëmmi Serigne Babacar Sy wax dëgg yàlla ndax moom slogan rek mooy jël ndam jox Serigne baaba Sy defe naa nag loolu ndaw ñi wuy si nañ ko ci ndax képp kuy soppe Serigne Babacar Sy rek boo ko laajee kuy soppe ci way mu ni Pape Malick Mbaye loolu wax defal ah macha allah koo xamante ni soppe Serigne Babacar Sy nga rek soo ko laajee kan mooy sa soppe mu ni la Pape Malick Mbaye loolee dafa daal di jóge ci ki nga xam ne mooy way juróom di Baye El Hadj Mbaye doon de Mbaye ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljanna waaye tamit mu aski ba ci moom ba tay tay képp koo xamante ne jeune nga rek nekk Tidiane mu nekk loo xamante ni fierté la ci nga xamante moom mooy kër Cheikh Seydil Hadji Malick waaye tamit yéen activités yi nga xamante ngeen di mëne au est ce que am ay yeneen activités yoo xamante lu demee ci volet social bi activités yoo xamante ne bokkul ak gàmm gi ngeen amal tey waaw loolu loolu ci bu baax a baax a baax te yàgg nañ nekk 100 pour cent bi day dox ci social di dox ci service kër bépp événement boo xam ni religieux boo xam ni euh, kër gi da koy taxawee ci njaboot Serigne Babacar wala njaboot Serigne Hadji Malick da nga ciy ci biir da nga loxo 100% bi mi ngi ci biir. loolu 100% bi yàgg na koo taxawee ndax ñun euh, Serigne Hadji Malick rek moo nu ñor Serigne Babacar si rek moo nu ñor yonent bi rek moo nu ñor kon Tivaouane rek moo nu ñor. donc lépp bépp bépp événement boo xam ne nii Tivaouane mi ngi koy doxal rek ñu suñ suñu loxo mi ngi ci biir ñun 100 pour cent bi loolu loolu ci la ñu nekk loolu moo ñu booleeg Pape Malick Mbaye ndax dañoo gis ci moom ak ak ak ak ak bëgg Tivaouane ak bëgg kilifa yi ak bëgg njaboot Seydi xaaj Malick loolu nag moo tax ndaw ñëpp fàq wuti ko xamni lépp lu muy def ak lu muy taxawal ci kër gi bopam taxul wa yàlla bëgg Seydi Hadji malik motax ma sha allah comme kon idée bi nga xamante mom lay utiliser à chaque instant rek nan sama ité du lenn lu jël ndaw ñu jox sëñ Babacar dafa mel nekul ay naxate quoi mi ngi mi ngi mëne comme il le faut non lool nekul ay naxate lim ci jëf sax ci ci ci ci ci ci baatin moo ëpp li ngay gis ak li ngay dégg ci ci ci ci ci zahir yàlla xam nako ndax def ci def ci ay taxaway ak ay social ci souf yo xamni kenn du ko yëg ngir yàlla ak cofeel gu am sëriñ Babacar si kum xam ne soppee sëriñ Babacar nga rek lépp loo am ci di ko taxawal rek lu mu mën ki sagal dana ko def ku ci am bis dana la sagal ku ci am naqar mu am bokk ak yow ku ci am bànneex mu bokk ak yow moom na yëg ni rek saxol sëriñ Babacar Sy rek amul ci yow sago loolu la ko yàlla defal macha allah taala Gadiaga ñu amoon mbégte a contentement bu baax xam naa dañ lay bàyyi nga dugal kàddu gu mujj waaye nekk ci xadara bi mën a ñëw adhéré incha allah ci biir 100 pour cent Pape Malick ngir gën a wéyal liggéey bi nga xamante moom la suñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick bàyyi ñu bàyyi la nga joxe kàddu gi waaw kàddu rek mooy di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di gërëm fépp foo xam ne soppay Pape Malick Mbaye mi ngi fa ci réew mi ak ci bitim réew rek di leen wax ni lii ñuy taxawal muy gàmma soppe du soppe Pape Malick rek sax ñoo ko bokk waaye képp ku taggantu sallallahu alayhi wa sallam ci nga bokk ndax li mu seq ak ñun la séq ak mbooleem kuy nawleem ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ci yaatu xolom ak laabiram loolu nag dañ ci woowaat ndaw ñëpp rek ñu xam ni li sunu yéen rek mooy li nga xam ni moom la Pape Malick Mbaye di wax mooy ñu jël ndaw ñëpp jox ko Serigne Babacar Sy di ci woo góor di ci woo jigéen ñi waaye nag dañuy du ñu jeexal mukk te daana luñ ci jox mention spéciale ci jigéen ñi 100 pour cent bi ay jàmbaar lan ay borom yitte lan loo fi gis li li liñ doon wax naan soxon Umu Mody Sopé Mbaye mooy pendal mu gën tubay loolu day feeñ ci cent bi toujours jigéen ñi fi nekk ay jàmbaar lañ fu góor ñi taxaw ña nga fa lu góor ñi def benn ñu def ñu def ñaaram loolu nag dañuy ñaan yàlla may leen ay njaboot def leen ay mag def leen njaboot am barke kenn yeneen bi